danga naa foofu yaa anaanoo yow borom yërmande ji xam nga ne yaa ngi dem yaa manaanoo yow ku ñeewantal ki yaa dayaanoo yow faykatu bor bi yow ma diini ci ba ñuy fay bare di bis penc loolu la ngay wax foofu bi nga tolloo ci sax di bëgg rek waaye du loru ndee mooy daw danga naa yaa anaanoo yaa manaanoo yaa dayaanoo yow loolu nga yokk ku dëkk. Seydina Limaamu nee na. bàyyi Seydina Isa bi ngeen janoon te di ko teeru. nee na keroog. ngeen xam ni. ngeen xam ni. sàmm day am xarala fu jur gën a mu bëgg. dëgg la. mu ne ba suñu ko fi assiette waxtu maa ngi leen di siyaar ci plateau. balaa bii ngeen jiiti di rëg rëg yi roo ñu di ko rocci bàyyi lay na mu ne ko ñëpp taxaw ci sa kanam nga demal ko di lekk ñu ne ka nan nga na fay siyaar ci ban façon mun a siyaaratu abi bii wa abi bii ni soppe di siyaare soppeem ci laa leen di siyaar ci waxtu woowu wa ansurookum waxtaane wu ma leen du leen bàyyi ba ñu ànd ca ba ña lay sax nga bàyyi lay maa ngi toog di xool ca lu wax te pos de ko maa ngi leen xool ci waxtu wi leen di usuurukum maa ngi leen di nemm ko li cangaay jeexee solal jot ñu solal teg ci jaab wala ma masiri lay di tudd yàlla ànd ngeen na ñu tudd yàlla bu la ñu ah, nga lay gunge di wax kàddu googu nga ni nemm tàlli ñàdd sa dër bi yow mu naa la laa ilaa وأنتم بامات دوبا سير كلام ما خاطر من لا اله وأنتم تسبون يحشركم بدخولكم الخبر ما نجي لين زيار نك فني لين جيلي mi ba ñi di dox bi menyul. mu ñuul بدل أبا يذكرك كبير كنري إن هذا لا إله وأن ليس الإنسان إلى ما سعى وأن سعيكم سوف يرى أم هو ترى الباب بابا يا مولا أكسبه fii de lu war andiwul woon doo ko fi fekk waaye dañoo ko la rek naa la laa ilaa bàyyiwuma leen ba ñu dee sampa dembe la ñii ba ñu rimilaat di leen gunge indi siraat ala mët ne jàpp na ndax siraat dafa nekk pom pom xam ni dafa tiim kamba ko wenn ferñeent bu ca lakk adduna jëpp ñu teg ko ci ñu ne limaam kon nga expliqué siraat nan la mel ba hauteur ba largeur longueur wax nu guddaayam yaatuwaayam wax ma it départ am nan lañ ciy doxee mu ne ak na ak fooraayam mu ni mu ni moo gën a sew kawar xarulu saari ñu ne kawar mu ne moo gën a sew kawar gën a tàng gël gën a yëngu jaan guddaayam nit doxam ñetti junniy at la yaataayam doxam ñaari junniy at la ñu gàll ko ca kaw pom booba nit ñi nag di gërëmte di ca dox te kenn du arrière anamaare. kenn du dellu gannaaw da ngay ca kanam te boktal xis rek daanu ci biir kanam. ñu ne ko bàyyi lay kon ñu ngi lay ñaan fii de mucc mënu fee nekk ngir malaaka yi kat dañ cee topp loo paase ñu taxañ ko ñu jënd. moo tax amul arrêt ñu ne bàyyi laa yi dimbali nu mu subhanallah yi wa bi am di subhanallah al asim wa bi am di na mu ko wax وصولكم إلى باب الجنة وإسرائكم إلى المقربة والمقامة ما عندك يين بمين واتي تبونتو أجنة bee ñu di leen teertu andi ndoxi kawsara andi ñamu àjjana bi ngeen naan ci ndox yi lekk ma ànd ak yéen ba ngeen dugg àjjana kër xéewal ba saxawaay bu tey ba këram mbir kër wa fi salikal waxtu kuntum tafkuruna nee na waxtu wii nag ngeen dugge àjjana ba lekk ba naan ba sawaalu summaku àjjana dana neex ba ngeen fàtte ba ngeen fàtte ba ñu ne ko limaamam nu fàtte la mu ne waaw mu ne ndax da ngeen di fàtte yàlla ñu ne ko noonu la fàtte kon de alhamdulilah yam dan kasiran